ñaar lanu avec avec avec. avec Abdou Diouf daf ko plaqué. plaqué ah. mais ñooñu yàgg na. avec Boy Niang avec Boy Niang bu Boy Balla pare ma avec Boy Niang dama tuddee daf ko acculé. Babacar man ku may ko dara. Babacar ku ësëgutu Boy Niang du ngeen ma may ma eggale mën ngaa rusu ci ku ne. waaw ayca waa ayca waa waaw ah? ah. ku ësëgutu Boy Niang. waaw ah. ku ësëgul ci Boy Niang. waay mën ngaa réussir ci ku ne ci la. c'est ça ayca nag ASBK waaw foofu bu ñu paree waroon fa mën a toog. ayca baasi maa ngi ñëw fi pour man fi mu échec. mooy ci Balla Gaye jël Balla Gaye numéro 2. moo ko jaaxal. parce que moo ko jaaxal Balla Gaye parce que pour man gis nga Tapha Tine na fi combat ak euh, Boy Niang te bi mu ñëwee même bu fekkee par avertissement la ko daane sax ku gérer combat bi la jël na combat ak Eumeu Sène combat boobu yaakaar naa ni combat bu metti woon la ci moom te poids bi la ko bëree te pourtant bi mu ñëwee dafa gérer combat bi. lakk lan moo daan Tapha la. moo daan Tapha mais Balla Gaye ndaanaan la. Ah. en plus Balla combat bi da ko jaral. waaw ah, da ko jaral dëgg en da ko fekk ci mëninam mooy ci xeex bi muy wax ba mu xeexee ak moom moo xam ne instant jot na pour mu liggéey ci suuf si la dawee ca xamal ko. waaw. Mm-hmm. Ah. mais da ko fekk si il fallait mu xeex moom pour mu mën a am lu mu bëgg. waaw. Mm-hmm. yaakaar naa loolu c'est clair ah. nga Tapha Tine lu lu mu indi ci début euh, combat bi loolu la waroon maintenir yeggale ko. mais est-ce que Balla Gaye mi daan Tapha Tine te may na ko moom it fi ñu toll mu mën a jotaat boppam ci làmb. buur waaw xam nga. ak forme bi mu indi. daan na Tapha coow li bari na Balla ñëwaat na Balla ñëwaat na est-ce que Balla ñëwaat. xam nga dafa am wax joo xam ne saa bu ko xemu mu dérange ñu bëri. muy lan fekk Modou Lo ngir ràññee Balla Gaye oh. du nekk ci baisse de forme day jéem a essayer de d'être au top niveau. Mm-hmm. mooy benn souci la am benn bët la am mooy Modou te loolu mooy dëgg chose normale. Mm-hmm. par nit ki aussi su fekkee dafa bëgg am fu mu dem dana xool ña fa nekk wala ña fa yegg aussi mu jéem a nekk ci niveau boobu c'est normal mm-hmm. dama leen ni woon. Mm. bés bu Modou loo daanee Tapha pour mu daan Balla Gaye de dana jafe. Mm-hmm. parce que Balla gay fa la teg bëtam. fa la teg bëtam surtout Modou Lo ñëw def benn exploit. Mm-hmm. daan booy ña mi ko daan daan leen si ko pancos mi nga xam ne rakkam la. la. Mm-hmm. donc des fois il se pose la question pourquoi Modou loo mën a toll fii di def lii. te man man Balla Gaye ma mën ko mi daal Modou Lo ñaari yoon avec la manière ma nekk à ce top niveau là te jusqu'à preuve du contraire âge wax jëm waxoon ca fa ñuy jaay tamaate ji nu mu tudd. Euh, pâtissier. wax jëm waxoon. waaw. <laughs> mooy damaa bëgg teg fii. li jaay pâtissier nga ni tamaate. tamaate bëgg teg fii empereur bi. Hmm. teg fii roi bi loolu nag la temps nous le dira. mais est-ce ci. est-ce que li facile ci Balla euh, Balla Gaye li facile ci moom ci Modou Lo. waaw est-ce que facile na ci par exemple keneen ku dul ñaar ñooñu. ah parce que ni ah, mu yombee ci ni ko ni bu ah, ma xoolee li bëgg a wax. Ah, li ma bëgg a wax. mooy parce que Modou Lo mi ngi bëreeg Siteu. waaw te kenn xamul kuy daan on sait jamais bu Siteu daanoon Modou Lo tey est-ce mu daan Modou Lo Balla Gaye mën na koo su ma la xee as benn mbir di ko gëm. Oh. ah tey ma wax la wax la waaye tontu leen. ah dama ah, ah, bu ma yàqal waaye. Ah. bu bu buur même ma ñëw oh, buur même ma ñëw. waaw lu leer laa lay wax. ah ah ba nga siif Modou Lo hmm. il a intérêt. Hmm, hmm. pour sur sa communication. de faire le sur son combat ak Balla Lo est-ce laaj ma ma laaj ma. yéen a ngi wax Modou Lo. maa ngi ñëw nañ ma laaj. si taa ngi toog te si te. est-ce n'a pas dit le de son ah, dernier dem gis naa benn photo gis naa ah, ah, maa gis ma maa gis Siteu. waaw maa Siteu oh. oh. ngi liggéey de. a hmm? yàlla ko yàlla defal cat. Fadam doo may ma yeggal li ma bëgg a wax ngir yàlla. <laughs> gars yi ils ont intérêt. gis nga Modou Lo loo. su dof dof loo. danañ ko embargo Siteu daan ko. Balla Gaye 2 jël Siteu. ku koy embargo. la ilaha illallah loolu information béykat la wala lan. lii su takk da dama la ko eh, eh, eh. mi ngi bañ ko couronne am. ma wax déggoo li ba léegi. dégg naa a dégg xam naa leen wax. déggoo li ah. ah. surtout ngeen di wax waxi ambaar. ñu ah, ñëwaat ci Lac de Guiers ak Aliou Seye ñu ñëwaat ci Lac de Guiers ak Aliou nag léegi nag wax nu nag sa plan nag nag xanaa nag boo fi ñëwee ba toog fii nag waaw dégg nga wax li nga bëgg nag lan la yow it ñëw nga. waaw acca bisimilah. wax nu nag loo bëgg ci lan saa nga ni yow changé nga boo duggee si géew bi dangay ngay def. ay ah parce que yow boo waxul bëri tamit day xaw a doy waar. parce que lak bi nga fi mujjee bëri nga fi ay combat yoo xam ne bëri woo fi dara dara dara ba pare ñëwaat nga toog fii. waxoo fi dara dara dara dara. da nga nuy wax dara lu leer. parce que balaa la promoteur yiy jël. danga mm. leen di jox ay argument yu valable yu tax ñu jël la. Mm. bisimilah. mais père ma wax la benn affaire. ayca bisimilah mais lu tax nga ne bëriwuma fi dara. ah non parce que son dernier combat la. digganteem ah. ah daanu ko. ah waaw mais raw na loolu. Ah. raw na kay raw na li mu bëri waaw waaw. ñu ngi doon ci moom leneen lu bokk leneen lan doon xaar ci moom <laughs> dafa bëri blessure wala. dafa waaw nee na dafa wala méfiance méfiance. da nga méfier même contre Eumeu Sène da nga méfier wu. mais la communication boobu nga communiqué awa contre Eumeu Sène da wu. déedéet contre Siteu da nga wu waaw loolu la il faut nag gën a méfier wu moom mii. ndax j'ai suivi ta communication. nañ ma ñaaral liñ may xeex. bu mm-hmm. stade ba bés ba bu ma kenn jege. bu ma kenn laal. mais yaa ko wax Papis na de. Euh, ah, bu ma kenn jege. waaw bu bés ba bu ma kenn laal. bu ma kenn laalal dara. nañ ma ñaanal waa géej waaye nañ ma ñaanal. Eh, yaa ngi wax yëpp. waaw léegi bàyyi ko mu expliqué waaw mais contre bi. waaw ah? waaw j'étais blessé. te loolu gis nga ko. après laay doog a yëg ne da nga ah, blessé. j'étais blessé. da nga damm. ci biir ah, combat bi ci biir combat bi avant combat bi la ok avant combat bi avant combat bi la gaañ sax man maa parce que moment boobu noonu ci période Covid bi ñu nekkoon. yaa ngi dégg bëggumoon lamb yàqu. Mm, ok parce que moment boobu su ma ko déclaré woon rek lamb day continuer suux ba léegi. Mm-hmm. moo tax ma ñëw ak sama blessure bëree ko ak benn loxo. Mm-hmm. waaw loolu moom moo tax contre contre contre Siteu. Mm-hmm. li ma mbër musul def loolu la ma si def su ma taxaw di ko wax gars yi dañ naa ma di loolu amul. pourtant pénétré na ma ci côté mystique ma. ah na ma. côté mystique côté jàpp na la ah, ah, mystique ah, mooy pénétré na ma. la pénétré. ci côté lu ma la dem ci làmb yëpp. loolu si te bu ma xawoon ñi may te bu ma xawoon ñi may te day am lu mu bëgg mais normalement man loolu moom moo ko woon de. mais fan nga sentir rek jàpp nañu ne avant combat bi. ci sa loxo yi lañ tey woon. non non gis nga avant combat bi demeewul noonu. en plus sama fii ba sama suuf tànk yi. ba ma ba ma xëy rek mën naa daanu. sa genou ba suuf tànk. waaw mais kan moo la gënoon a jege koo xam dañ ko dañ ko sant dafa nekkoon ci côté doon jàppale nga dégg information ne ci côté Siteu jàppale ko ci combat bi. li mu bëgg a wax kon mooy a am a la a woon toog toog loolu amul amul loolu amul mais a pénétré a côté a waaw pénétré nañ bi amee ci combat boobu ba ñu prêtre ci côté mystique. non boo déggee ma ne la prêtre lañ ma ci côté mystique. c'est pas dafa am benn faay boo xamante dañ la jaay quoi dañ ma jaay wala yooyu du loolu de maanaam nit di doomu aadama munoo wax wax wax ba nit du yegg fenn ci côté mystique te yegg nañ ma fa. wala da nga yow as yi nga def ci làmb li nga def ci làmb yëpp looy seetaan ba Siteu di la pénétrer ci côté. waaw mais xanaa man du ma doomu aadama. ah doomu aadama nga ko. est-ce que noonu làmb kenn ku nekk kenn jàppale ci gàllaaj. bëri mu mais làmb yi nga bëre yow kenn musu laa jàpp. kenn yow yow mi yow saa woo ñëwee da ngay def l'essentiel. waaw bokk nga ci mbër yoo xamante ne per dañuy jàpp de lu leer laa la wax de. ah mais xanaa moom mbër mësta def nga wax la la Siteu def waaw dégg dégg ma ne la ba la il faut laaj bi eh. laaj yi gën a clair. <laughs> waaw réponse yi gën a nekk de réponses très claires. Mour looy ne. <laughs> <laughs> ci début combat bi ba ci fin bi loolu ngay. ñëpp nañ jàppaar ni keroog Siteu était le vainqueur. Mm-hmm. ndax quatre vingt dix pour cent des Sénégal booy laajoo dañu naan lëg dëgg day coob Siteu wax ci jeex. waaw si la ñëw teg sañ-sañ. endurance teg bandi. tenir la. ba pare signature la commencé ne la waaw doo ñebe. doo cent franc maanaam daf la tenir en échec c' est ça le vrai sens. kon su ma la déggee da nga bëggoon a laajte gerte xale yi arrangé wuñ ko. Euh, waaw waaw jërëjëf. sànq waaye ah. waaye rajim rajim jërëjëf. ah, ah ok. Ah, kon loolu tax mu bañ a jël Serigne Ndiaye. waaw jërëjëf ok. résultat bi soo xoolee. deux yaa ngi bëgg a bokk ci génn. dugg naa ci mais ñaari jën yëpp moom moo am victoire. ay Modou Lo la dëgg yàlla. moom moo am victoire waaw waaw mais daa mais daanu leen ba toog seen kaw. daanu leen ba toog seen kaw booy ñaar. non non non attends Momadou. kii li muy bëreeg ak maasam. réussir gu ko ci jeunes yi. waaw ndax loolu laa dégg fii mu ne na xale yi pénétrer ñëw pendant ce temps mag ñee ngi dem di jëli xale yi mais lag bu fekkee ne day xaar booy pénétrer. mooy nañ ma ñambaan nag ñi fi nekkoon. buur sama classe gi mais buur. ah retraité retraité yi bëri naa. ah bëri naa xale yi de da nga fàtt lool. waaw ñaar ñi man de. li ma wax loolu loo bëgg ma góone ci xale yi. déedéet réussiroo li nga. xanaa li ñu xanaa li ñu c'est-à-dire keneen newu fi. mais ñu toog xaar carte gi dina toj per. Ada Fass tey jii Ada Fass tey jii Gaston Production mu ngi contrat Ada Fass waaw

loolu de am na ah, ah ah, ah parce daa foog ne aada a yomba daal. waaw aada faas gën a a seen xale yi waaw. Eh, ah, dama la laaj Doudou ndax pare nga mën du ma ko laaj Doudou Sané yow laay laaj. da ngeen bëri mbapat da nekk na sama kër un Ah, ah, un. ah ok doo bëri moom ah